بسم الله الرحمن الرحيم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي لين دي نيو تي بارابو تيد بيغا خامني موم لا نيو باخو داجي تي وقتو تي وقتو وي غير عمل في وقتان نيغا خامني دا فا جيم تي مبولم لو خامني اب جوليت داكاي اديو ولا اب طالب ديكو اديو سوكو دافاي تاي ان شاء الله تعالى نيغي لين كو واخا ñu am fi gan gu tedd goo xam ne moom la ñu fas yéenee àndal jataay bi ci euh, thème bu am solo boo xam ne bu mat a bàyyi xel la rawatina ci jamono ji nga xam ne ci la ñu toll euh, ni nga xamante ne noonu lañ ko baaxoo defee ci képp koo xam ne jaar na fi ñoo xam le tuuti ci ay jaar-jaaram su ko defee doog koo jébbal kàddu gi kon mbokk mi nga xam ne moom la ñuy dalal tey mooy Cheikh Modou Diokhané ngir xam xamle tuuti ci am njàngam jaar-jaaram ci wàllu njàng mën nañoo wax ne moom mi ngi dugg ci école français euh, ci Mbàkke Bawol fa la tàmbalee am njàngam CM Gaynde Fatma fa la amee brevet gannaaw bi ci la fa jóge dem Kaolack foofa la amee baccalauréat gannaaw bi ci la dem ci daara jëm ak jooju ci Ndakaaru ñu di ko wax Cheikh Anta Diop université Cheikh foofu fa la amee maîtrise gannaaw ba mu fa jógee nag ci la nekk koo xamante ne ab liggéeykat la doon directeur boo xam ne directeur chef d'agence bu CBAO nga xamante ne mooy saytu mbooleem lu jëm ci wàllu euh, diggante Touba banque ya fa nekk ak Diourbel ak euh, Daaru Moxti gii moom jaaroon na Daaru Moxti ñu bari xam naa du ñàkk xàmme nañ ko euh, gannaaw bi itam am na diplôme boo xam ne euh, amee na ko ci loolu euh, muy CFPB muy centre de form de formation professionnelle des banques kon ci loolu moo doon ab yëngatoom waaye <clears throat> ni ñu ko xamee tey ba woowee ko ni euh, muy ci wàllu njàngum xasida bi mu amee baccalauréat ba dem Ndakaaru ci la tàbbi ci daara ju mag jooju ñuy wax xisbu tarxiya foofu mi ngi fa tàbbi 1989 ba ci 1900 diggante 1989 1990 ci la tàbbi nag ci kuréel gu mag gi nga xamante ne ñooy jàng xasida yi boobu at moomu ci la njàngum xasidaam ba nii ñuy wax ak yéen ci kuréel tarxiya bi ci la bokk su ko defee. li nga xam ne moom la ñu fas yéene ànd ak moom tey ci waxtaan wi mooy njàngum xasida yëg-yëg la wala xam-xam la loolu la ñu fas yéene waxtaanal su ko defee bala ñu ko jëbal kàddu gi itam ñuy xamle rek ne euh, mboolem ñi nga xamante ne fas yéene na topp waxtaan wi ñuy xamle ne Zik FM incha allah dana ko jàllale 14 heures euh, quinze heures rajo bii di Darou Mouhty itam Darou Mouhty FM mi ngi koy def en direct. te suba incha allah ci 14h itam moom dana ko tegaat Walf dana ko jàllale 19h jant bi 0h iRadio 18h30 RTS Diourbel 13h30 FM dana ko jàllale 17h Sud FM 22h LAMP FM 23h UCAB FM 9h ci suba Lamp Fall TV moom dana ko jàllale 0h45 Bawol Média moom en direct la koy def. Touba Fall moom tamit minuit la koy def rajo Bambey dana ko teg euh, vingt deux heures su ko defee bu dee chaîne YouTube yi nga xamante ne ñoom lañuy àndal jotaay bi itam lu mel ni ki chaîne bu Al Wafa bi dana koy jàllale direct mook Bawal Média tubaa Vision Baye Daaru Média book laa bëgg a wax euh, xam xam xam sa réew TV Bichri moom tamit dana ko jàllale Al Khadimiya euh, Al Wafa Daaru Facebook bu Al Wafa Daaru itam dana ko def direct su ko defee yooyu mooy yi nga xamante ne jumtukaay yi nga xam ne ku bëgg a topp jotaay bi mën na koo topp foofu ñuy xam le yëpp ne euh, suba incha allahu taala daañu ànd ak sëñ baaba jaw mu war a ñëw ñëw ak ñun ci innama yaamuru masajidallaahi man amana billah kii dundal jàkka mooy ki gëm yàlla sëñ Cheikhouna Mbacke ibnu sëñ Mourtala mu sëñ Mamadul Fadal moom tamit dina ñëw ànd ak ñun ci fa ulaayika lahum jazaa'u di'f jëf ju jëf yu néew yi nga xam ne dañu koy ful lu baree bari àllarba ji sëñ Abdul Xuddus jenn mom dana ñëw ci al istismar al mahalli fexe ba tekki te do génn dëkk bi euh al khamis sëñ Mouhamadul Mamoun mu sëñ Mouhamadul Fadal mom tamit dara fi ñëw waxtaan ak ñun ci yaatuk al juma docteur Mbaye cham dana ñëw waxtaan ak ñun ci doxalinu bur yu njëkk ya euh gaaw bi al imam Assane sek dana ñëw waxtaan ak ñun ci al ijazul qur'ani euh mandarga mandarga yi wane ne alxuraanul karim xar baax la kon loolu mooy ayu bis bi ak li ci aju su ko defee ni ñuy def mooy dañuy jox kàddu gi sëñ Mouhamadou Joxaane ñaan yàlla yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barke sëriñ Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi ci jotaay bi di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mboolem mbokk taalibe fi teew di leen ndokkel ci wéru koor wi ak euh, di sargal ñëpp bala ñuy tàmbali nag ñuy ñaan sëñ Mouhamadul Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides sama borom doli ko wer te yagal ko fi lol ba nal yi mu nal ci leggel serigne touba mu matale ko di ñaanal mbolam jabaru serigne touba di ñaanal serigne basiru antagnang mi nga xamne moy borom daru tay sama borom yagal ko fi lol mom itam ak mbolam jabatu borom daru moxti ba nal yi mu nal lepp ci leggel borom daru sama borom defal ko ci ndam lu kenn musta am di nuyu ñëpp nag euh, waa Daaru Moxti di nuyu waa Alwafa di leen sant ci invitation bi ndax euh, jàpp naa ne euh, waxtaan bi ma ñu yi ñu def loo xam naa ne am nañ sax ñu ko ñu ci gën a yell ak ñu ko gën a man waaye ginnaaw tànn nañ ma ci rek man damay daal sant bu baax xam ne tawféex la ndax am na ñeneen ñu ko mënoon def loo di bég lool nag ci jataay bii ak ñëw gi ma ñëw tey ci Daaru Muxti bokk ci sama di lenn ci samay dëkk ndax fii dama fay am wàccuwaay bu baax a baax liggéey naa fi ñetti at yàlla nekkoon directeur d'agence su bi nek fi yalla def mo euh, fi jógee nak la del Touba ba tey liggéey bi gëna yaato tuba euh mati mati ci sante seigne Touba bu baaxa baax di ñaan euh, seigne mustapha Habsa mu seigne moo daaw Balla mi fi bayiko bu yagul sama borom dolli ay leram Tas ñu ci barkem ci barkep Serigne Touba ak borom daru di ñaanal njabot gi fi baye tam sama borom yagal len fi te ar nanguseni nangu yokuseni ñaan yok seeni makama ci barkep Serigne Touba kon ma am lol tay di ñew di waxtaan ak mbokk yi ci tem bo xamne dafa jëm ci njàngum yëkkati xasida ñu samp ci ab laaj ne xam-xam la wala yëg-yëg la boko ko wax ci tuba muy la déclamation des panégyriques du cheikh une science ou un désir kon muy lo xam euh waxtan wi nak dañ koy teunk ci ñaari pogn rek ñaari poñ nag bi ci njëkk mooy dañuy jéem a def taarixu njàng mi ci xeeti njàng yi am yëpp muy njàngum benn benn njàng mu yëkkati kuréel ak njàngum awiku gannaaw bu ñu defee taarix bi nag ba pare muy historique bi ak xeeti njàng yi ñu def nag euh, li ñuy wax xeeti daaj yi ak xeeti euh, technique yi nga xam ne euh, moo am ci njàng mi loolu nag moo ñuy indi ci li ñuy wax le conservatoire en chant religieux sur les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba muy euh, daara ji nga xam ne tey ci lañuy jàngale lu jëm ci wàllu njàngum xasida waxtaan wi tam am na tuuti rek luñ ci luñ ciy indi loo xam ne ndax bu ñuy waxtaan ci daaj yi ak ci njàngin yi dana aaja ñu wane ci tuuti rek ngeen may ñu wane ci tuuti lu mel ni ay benn bayit ñaari bayit su ko defee ñu day doon ab junj rek ngir mu gën a mën a leeral li ñuy wax nga xam ne dee su ko mën a wax ci détail ni waaye buñ ko buñ ko buñ ko jàngee dana tax ñu gën koo xam taarixu njàng nag buñ ca dee wax muy taarixum yëkkati xasida ci yoonu murit dañoo tuxalee ci ku ñuy wax sëriñ Yuusu Ndaw mu nekkoon ci jànkati sëñ Masàmba yu mag yi mu wax ne sëñ Tuubaa njàngum xasida nee na kenn mësu ko cee doy ba tax na moo ko daan defal boppam moo daan takk ndiggam di yëkkati xasida yi ca kaw nee na ba loolu amee nag mag ñi ñu ci bëri bu ñu déggee ku tedd gi baatam jóg ca kaw daf leen def ab jël ñuy buddi garab yi ak di daanu ay jëll la na loolu tax mu bëppal baatam mu waxit ne eh, xeeti njàngin yii moom sëriñ Yuusu Ndaw moo ko wax nee na lépp lépp sëñ Tuubaa àjjana la ko jële nee danoo dimbali rek waaye waruñ ci ñoom waruñ ci woon a mën a mos dara te tàbbiwuñu àjjana waaye ndimbalam moo tax mu jële ko àjjana indil ñu ko fii ñu di ko taaxamti ko ah xasida nag liñ ci mën a wax mooy ni nga xamante ne bii alxuraan alxuraanul karim dafa bokk ci melo yi suñu borom yi addis bokk ci melo yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la xasaayit bokkee ci ay melokaani sëriñ Tuubaa ba tax na euh, mu doonoon lu mu fonk loo xam ne moom ci boppam moo ko njëkk a yëkkati gannaaw ba loolu jàllee itam euh, fépp fu mosa ne moom Serigne Touba am nañu koy jàngal xasida am nañu fay yëkkati xasida yi di dundal kon muy loo xam dafa bokk ci taarixu yoonu murit dafa doon li ñuy wax ci patrimoine culturel bu yoonu murit dafa bokk ci mission yi nga xam ne itam Serigne Touba doon na dox fii ci kaw suuf muy loo xam kon lu am solo lu ama am solo la nga xam ne tey kenn mënu koo génne ci taarixu yoonu murit ci ndonol yoonu murit ni nga xamante ne bii nag euh, yoonu murit dafa am léppam dafa am ay valeurs culturel de base yoo xam ne ci fànn goo xool rek danga koy gis am na ci sunu colin am na ci sunu waxin teggin yi ba ci ni ñuy dëkkee Euh, lu mu ci mën a doon rek euh, loolu itam fa la ñuy dugal njàng mi mu nekk loo xam ne euh, kenn mësu koo gis fenn rawatina njàngum kuréel nga xam ne Sëriñ Tubaa lañ njëkk a gis mu dajale mbooloo ñu mànkal ba def ab géew taxaw di yëkkati xasida kon loolu dafa nekk loo xam ne lu original la loo xam ne suñu ndono la sëñ Tubaa rek moo ko am sëñ Tubaa nag fépp fu mu fi mos ne wax nañ leen ne am na ñu ko daan yëkkatil xasida bi mu nekkee gànnaar am na ku ñu doon wax sëriñ Buuna Fall am na ku ñu doon wax sëriñ Mahmoud Fall euh, bi mu jógee gànnaar jëm si ci yéen euh, am na dëkk bu mu jaar damay fàtte turu dëkk bi waaye wax nañ ne dafa tombeek gàmmo keroog sëriñ Mayib géey moo ko fanaane jàng loolu ñu ngi ko doxalee ci sëriñ Cheikh Guèye mi nga xam ne moy doomi serigne Mayib gey di jangkat bu mag ba nga xamne mo doon and ak serigne Ibra bu Fall ni jangal serigne Touba bu ñu ñëwee tam ceyeen ci Jolof euh, serigne Touba amna jangkat na bu ñuy wax serigne Madina Lo momi it daana fa jàng mawahibu mawaahibu boobu nag danañ ci ñew ci kanam ñu jëm ko woné ndax li tax moy dafa bok ci euh, daaj yi nga xamne sëriñ tubaa dafa wax ne daaj boobu moo tax mawaay bu wàcc loolu tuxale nañ ko ci sëñ mayib géy tuxale nañ ko ci sëñ yuusu ndaw ak ci sëriñ cheikh géy mayib daaj boobu nag dinañ ci ñëw ci kanam kon sëñ Madina Lo moo ko njëkkoon di jàng ca Ceyeen euh, Jolof mu doon euh, bu am solo euh, gannaaw bi mu bàyyi ko Ceyeen ñëw njaareem ci 1912 am na ku ñuy wax sëñ Modou sàmb ak ku ñuy wax sëñ Mbay Kan sëñ moodu Samb euh, dafa taxaw guddi di jàng xasida ak bu bi mu xëyee sëriñ Tuubaa woolu ko mu ñëw mu ne ko biig day bi ci guddi yaa mu fàttali sama taalib ba ñuy wax maddina loo te desoon ca Jolof kon muy daaj ba nga xam ne moom la maddina Lo doon jàng ne ko ndax man nga fee sax di ko def Nenemu Modou sam mom ab tajoor la won munoko ah kay Mbàkke mu boole señ mbay kan ñom ñaar ñu di jamo di and di jang sax fofu ndiarem ba mu xey nak digal ma samba ne ko nako wutal ay euh yuy sax ci kër gi di jangal diko di khassida yi mu señ touba wax nañ ne ma samba dafa dugg rew mi di tànn jàng jàngkat yooyu di leen tànn ak di leen wër kam ci njëkk a indi muy sëriñ Ibra Buuba Fall euh, bi mu ñëwee itam tuuxaleen nañ ci sëriñ euh, Mbàkke Fall muy kenn ci ñi daan jàngal sëñ ma Masamba kuréelu sëñ sàmba mu wax ne keroog ba sëñ Ibra Buuba Fall ñëwee sëñ ma Masamba euh, won ko ku tedd ki wax ko mbiram mu taxaw nee di jiyam ñu jox ko xasid ak jës bu nee na muy jéem di làmbatu di làmbatu di jéem di wëlbati nu ne wëlbatee na ko nee na ba yàgg mu dégg am riir ci asamaaw riir mu riir mu foor ci asamaan si mu ne tekk déglu ca la daal ci déggaale ab daaj daaj boobu mooy daaju gis bi nga xam ne daa ngeen dégg ñu koy jàng ñaareelu daaj bi ñu ko wax ñaareelu daaj bi ñu koy jàng salim ala baden jala waa kër sëñ ma sàmb daan ko ubbee sëñ Mayib Guèye itam daan ko euh, jàng njàngum kenn moom daaj boobu itam incha allah dinañ ci ñëw su ko defee jéem cee junj ay bayit ngir gën koo mën a gën koo mën a firndeel kuréel boobu nag euh, ñu wax ne fukki nit lañ am ñu wax ne fukki nit ak ñaar lañ waaye li wér te wóor daal mooy euh, sëriñ ma sàmba moo leen daan taxawu sëñ bu boo Fall moo nekkoon seen jëwrin ak sëriñ Mayib Guèye sëriñ Cheikhu Ndaw ma nga ci woon sëñ Aale Silla sëñ Maxuj Silla sëñ Modou Kan Dia sëñ Ibra Sàmb sëñ Ousmane Sow euh, ñu daal lim nañ leen ci boo ko toppee mu nekk mu nekk fukki nit ñoo xam ne dañoo saxawoon di jàng xasida Euh, ginnaaw gee ak waxtu fajar bu ñu am na waxtu yaam bu ñu ci toll ñu dem ci kër ya noppalu bu ñu bu waxtu jotaatee ñu ñëw di jàngal ko ku ci mas a manqué ku ne nag euh, sëñ Tuubaa daf ko daan laajte kon ma limaat leen sëriñ Ibrahima Boo Fall euh, sëriñ Mayib Guèye sëriñ Modou ja sëriñ Ali Silla sëriñ Cheikhou Ndaw sëriñ Ibra sàmb sëriñ Moussa Diagne sëriñ Alaaji Seck sëriñ Maxuja Silla ak sëriñ Ousmane Sow kon ñu fukk ñi nga xam dal fukk yi mom seen tur leer ndax serigne Mayib mi naan and ak ñom di jang mo leen tuddu domam tam euh, di sëñ mm, sëñ Cheikh Gueye Mayib momit fatali ko ci ay waxtaan yu bare bare ñom tam euh, njàng mi nañ ko daan defé serigne Touba moy joxe junj bi bu ñu dajee dañuy tok di deglu moy joxe ndigal masalan mu joxe teunk bi na inna laha mana ñu dal ci akhbabtu ak eh, yokk yi eh, léeg-léeg tam njàng mi daana def xaal daana ko def xaal bu metti bu mettee metti ndax sëñ Ibra bu moo faal mi nga xam ne moo jiite kuréel bi te daan taxaw di jàng eh, benn benn moom tam jàng na bis ba sëñ Tuubaa joxoñ ab néeg jox ko ko ne lu ne ci néeg bi na ko fab yóbbu wala mu yére yi ne ci néeg bi na ko fab yóbbu ñuy roñ bagaas yi di roñ bagaas yi di roñ bagaas yi ba yaakaar ne jeex na sëñ Tuubaa ne na sempi néeg bi boole ko ci bu fi dara des loolu teraanga jooju sëñ tubaa defal na ko euh, sëñ Ibra Bouba Fall ak mboolem ñi naan jàng xasida wax nañ ne gàmm itam euh, buñ mosaana mànkal defub géew ca njaareem mawlutu njaareem ba di fa jàng sëñ Tuubaa ci boppam moo naan jóg di jël sikki di leen wër par benn di ko sotti seen mbubb yi ba ñu yëg tooyaay bi ni muy duggee ci seen yaram kon xasida moom niñ ko wax ci tàmbali bi rek euh, lu sëriñ bi fonkoon la ñi ko daan ñi ci daan yëngutam euh, fonkoon na leen te daana leen bàyyi xel ak dee leen nemmiku ku mas manqué bu dee la nemmiku kuréel boobu nag ñoom lañ daan wax tarikat yi ndax boo bokkoon na ci sax sart yi ñu leen daan recruter dañuy mokkal dañuy mokkal xasida yi buñ naan jàng dañuy taxaw mànkal def ab géew loolu nag laa leen wax ne kenn mësu koo gis fenn ba àddina sosoo ba léegi am na yeneen jàng ay ay way yu fi jiitu woon waaye am na tam yeneen position yi ñoon taxawee lu dul noonu beneen secret bi ci nekk tam nga xam ne beneen tawfeex gi ci ne ci loolu ba tey sëriñ Youssou Ndaw moo ñu ko jàngal moo xam ne tey jii kuréel bu ñu doonee fukki nit bu ñu jàngee mawaay bi ba pare man leen ni jàng nañ fukki mawaay bi mi ngi mel ni kon euh, jaamu yàlla la loolu moom amul naa table day mel ni julli mbooloo ak julli kenn daa mel ni soo jullee julli mbooloo ci nga ëpp tiyaaba kon noonu la kuréel demee ak njàngum kenn kenn maanaam tey njàngum kuréel day mel ni kon moo ëpp moo ëpp tiyaaba euh, ba tey kon wax nañ ñi doon jàng njàngum kenn euh, nga xam ne ñoom mel na ni kon ñoo jiitu kuréel bi kon kuréel bi nga juddoo ci njaareem euh, bi ñu demee nag ba mille cent vingt 1927 ba ku tedd ki sanc këru àjjanaam Euh, li ëppoon ca kuréel ba dañoo féete ak sëriñ ma sàmba mi nga xam ne moo leen daan toppatoo moo leen daan euh, saytu moo nekkoon seen jëwrin am nag ñeneen ñoo xam ne dañ cee dolli ku mel ni euh, sëñ Matar Diaw nañu ko sëñ Youssou Ndaw waxee woon sëñ Cheikh Diaw maa ngi jégglu sëriñ Youssou Ndaw sëñ Mamour Diop nga xam ne ñooñu ak ñeneen ñu mel ni ñoom dañoo ñëwoon fekk si wuur bu njëkk ba ca ña desoon ci ñoom ànd ak euh, sëñ ma Samba di wëyal liggéey bi daanañ ko def itam ci événement yi lu mel ni ci màggal yi euh, di def itam léeg-léeg doomi sëñ Touba yi wala ñenn ci kilifa yi wolu leen ngir barkeelu ca njàng moomee ñu daan defal ku tedd ki sëñ Moon Mustafaa sax mos wax sëñ ma Samba ne ko man day dafa am lu ma jaaxal ci sa ci sa waa kër yi ndax saa su may déglu seen njàng daal am na lu may def am na lu may yëg loo xam ne yeneen njàng yi duma ko def te moo ne du ca baat ba du ca mokkal ga sëñ ma sàmm ne ko loolu de lenn képp la mooy li nga xam ne ñoom dañ ko daan wax ku tedd ki di ko dégg barke boobu moo leen topp loolu tax na kon njaboot sëñ Tuubaa yépp dañ ci daan barkeelu ak mboolem kilifa yi dañ la wolu len janglo euh ñu ci ñu ci ñu ci di ci barkelu lolu kon kurelu wa keur serigne samba euh gannaaw lolu nak ñu gis ne fi ci Daaru Moxti ci atum 1925 kon ci la borom daaru jox ndigal euh, wa mawlud bi ñu fi dundal guddi altine maanaam ñuy jàng alxames si guddi asafala dimanche si guddi bu nekk ñu di fi yëkkati xasiday Serigne Touba yi loolu 1925 la commencé ci njiitul Baye Matar Diané Serigne Mor Ndiaye Mandiaye Serigne Ibra gay sëñ Njaga Fall ak sëñ Mbay Baara Kura kon ñu nga xam ne ñooy mawlu bu mag bu njëkk tàmbali fii Daaru Muxti di jàng muy 1925 boobu ko tedd gaa ngi njaareel gannaaw bi nag mën nañ ci lim euh, Baye Modou Diop Koso mën nañ ci lim ca sëñ Thierno Fat Sarr sëñ Mbaye Xuma ak sëriñ Mbaye Lo nga xam ne moom wax nañu ne 1964 ba léegi kon mi ngi ci mawlud bi jiite jiite njàngum xasida mi loolu itam di dox ñu dem ba euh, ci année année 60 yi xam naa 1968 du ko sori euh, année ndax 1968 la sëriñ Abdoul Ahad Mbacke toog xalifa sëriñ Touba. momi itam euh amna yoonu wum wër sax Sénégal doon némiku doxub némiku dafa yonne won ci Mahmadan mu Masamba ne ko dafa bëgg jankat yi gungé ko Buso sëñ Abdou Bousso moko net li nga xamné kenn la won ci kurel ba waye gannaaw bi nak mom sëñ abdoulat dafa taxawal kurelu khassida dafa euh bay Mbay Ñang ci la bokkon ne ko wutal fukk ba fukk ak ñaar ño xamné nañ naan defal sëriñ tubaa ca njaareem ma ànd kook yéen fu jamono toll ma toll fa yéen loolu itam jëlee nañ ci bàyyi mbayloo tuxale nañ ci bàyyi mbayloo mu ne keroog ba leen sëñ bi dajalee da leen wax ne man kat du ma leen tànnal njiit dem leen ngeen waxtaan seen biir ngeen jiital kenn waaye man duma leen tànnal njiit ca leen jiital bàyyi mbay ñang euh, muy ànd ak ku ñu wax sëriñ Amsatu Lo amoon na sëriñ Modou Matar Mbaj sëriñ usmaan seen sëñ góor a sëy sëñ Cheikh sëy ñoo ñi ca kuréel boobu lañu bokkoon ba loolu amee itam euh, kon ngeen gis ne kon mbokk yi day nekk euh, ñetti kuréel référence kuréel ba daan jàngal sëñ Touba muy mawlud ba nekkoon Njaareem te juddu ci 1912 ak kuréel bi nga xam ne ñoo daan jàngal euh, maam Thierno nekk fii Darou Mokhti juddu ak kuréel bi nga xam ne sëñ Blaat moo ko taxawal ci 1968 te euh, Baye Mbaye Niang euh, jiite woon ko mu doon loo xam ne kon ñetti kuréel yooyu euh, daayira yi dañu see roy am ci ñu yàlla baaxe woon ñoo xam ne teel nañoo yeewu ci njàng mi ñu daje nag ñoom ci mbooloo mu ñuy wax Hizbut Tarqiyyah gën a dooleel njàng mi gën cee gëstu ba taxawal lu ñuy wax conservatoire en chant religieux sur les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba kon ku wax conservatoire da nga naan daara ne école loolu nag moom lay mujje waaye seen blaat dafa def liggéey bu am solo ci xasida yi da ko yeesal ndax bi mu toogee rek dafa daal di nemmiku mboolem ñi daan jàngal Serigne Touba dafa wolu sëñ Mayib Guèye ba mu ñëw mu ne ko ndax ñi nga daan àndal njaarem di jangal ku tedd ki na amna na kenn ku fi dess ku dul yow ñeneen ñu fi dess ñu dul yow señ mayem nako man ma fi dess mu ne kon bok njang mi ya koy def te kenn dula rax do ci ànd ak kenn na ko don defale ku tedd ka njaarem señ Cheikh gey mayep domam la neena mo teewon euh, micro bi di ko enregistré ak ak magnétophone bi waye neena na ta and ak mom te mané nako niko señ niko wajuram mané won waye ndigal li ma don señ mayem rek jàngoo kenn rax sembla tam Eh, gis nañ ci jamonom jankat yi mag ñuy wax sëñ Moustapha si da nañ ko tek ci jumaa ji muy jàng ci radio jumaa ji eh, sëñ eh, sëñ bay Diop doonoon jankat bu ko mom tam sëñ mbacke Jaxate ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ño xamne ne ñoom ci walu rajas ak itam mag ñi nga xamne ne ku melni ni sëñ Mat Lamine Guèye nga xamne talib la Euh, sëñ Abdou Lahad ñoo ñëpp euh, nga xam ne sëñ bi moo leen encadré maanaam samp leen ba tey ñu def ay band yoo xam ne bànd yooyu tey euh, ñii nga gis kuréel yi nga gis tey ñuy jàng di roy xasida yi gannaaw bu ñu noppee rey waa kër sëñ ma Sàmba wala waa Daaru Muxti wala waa kër waa kër sëñ Blaat ñoom Baye Mbay Ñang ñooñu rek la ñu mën a roy ba nekk daaj yoo xam ne sax boo ko déglu da ngay def ne kuréel moo ko njëkk a jàng fekk na daañ la yoo xam ne njàngum kenn la daan doon njàngum rajas la daan doon loolu di liggéey kon liggéeyu Sëñ Blaat boo xam ne liggéey bu rëy la bu mu def ci xasida yi euh, ba tey ci taarixu njàngum kenn boo jëmee ci jamonoy euh, sëñ fàllu ku mel ni sëriñ Aliou Fall mën nañ ko cee lim dafa mel ni sax doomi sëñ Tubaa ju nekk wala kilifa gu nekk rek am nga ñu daan def loolu sa biir kër boo demee kër sëñ Basiiru Daaru Minam sëriñ Alaaji Siise am njàngam siiw na lool ci ñaan jàngal sëñ Basiru la bokk nga xam ne sëñ Saaliw dafa bëggoon am njàngam lool lool te taamu ko muy sëñ Alaaji Siise am na sëñ Modou Mbàkke Joxaane nga xam ne tey daa ji bëri ñuy jàng ci rajas moom moo ko daan jàngal doomi sëñ Tuubaa yi ñu ko ñu di ko wax Baay Joxaane am na sëriñ kii ñas fàtte turam hmm? sëriñ Masamba Ñas sëriñ xaalisay euh, sëriñ sëriñ Mbay Jóob soo demee ci kër goo ci mën a dem rek ci njabootu sëñ Tuubaa am nañ jànk yu fa féete woon di di jàng xasida yi am na ku ñu doon wax sëñ Cheikh Mbay Masalik nga xam ne moom jamonoy sëñ Fàllu la woon nga xam ne daaj bi nga xam ne sëñ Basiru Seen bu Kawlax moo ngi koy roy di ko jàng Fawzayni ci moom moom moom la ko jëlee xëy na sax bu gën a yaatu danañ si ñëwaat ci kanam kon daal ci ci gàttal loolu lañ mën a tuddee euh, taarixu njàng mi nga xam ne kon dafa doon mbirum sëriñ bi doon lu bokk ci yoonu morit doon doon ci yoonu morit nga xam loo xam ne culture la civilisation la euh, dañ koo boole sax ci ibaadaat yi nga xam ne jàng xasida mën nañ ne jaamu yàlla la ndax wax naa ko sànq ne boo bëggee gis melokaani Serigne tubaa da ngay xool xasida yi te moom ginnaaw moo ko doon yëkkati moo ko digle sëñ su na waxaat ñu ne mboolem daaj yi ak njàngin ni sëñ Touba nga ko jëlee àjjana indil ñu ko fii ñu di ko taxamte ko te mënoon naa bàyyi ba ñu dem àjjana doo ko doo ko faa fekk waaye dañu ko indil fii kon loolu mooy euh, li nga xam ne mooy taarixu njàng mi léegi nag xam naa bala ñuy dugg ci daaj yi ak euh, njàngin yi ak liñ junj sàng muy conservatoir xanaa war nañoo mën a seet daaj yooyu nga xam ne wax nañ ne moom lañ njëkk a dégg mag ñi di ko jàng te sëñ Tuubaa joxoon leen ko ñu xool luñ koy jéem a ñu junj ci tuuti rek su ko defee dana gën a leeral dana gën a leeral ci ci waxtaan wi kon daaju jës bi nga xam ne wax na ne sëñ bërëb boo faal bu mu ñëwee ci sëñ tubaa eh, di ko jàngal te sëñ Masamba indi ko muy taalibab sëñ Daaru Asan Njaay bi mu ñëwee ñu jox ak gis bu muy làmbatu ba ci biir la dégg am riir ca biir riir moom nag la dégg ab daaj ba mu ko yëkkatee rek ku tedd ki ne ko ak saanoo nii la daj bobu nak moy eh, daj bi nga xamne seigne mayit ge don nako jang jess bu wala budé wa ko seigne ma samba lé lañu ubbé ko lé lañu def ko ñaaral daj bi kon seigne jili الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستقيم مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يدين على الكتاب بالمصابين مع جميع النعم أحمد ربي العظيم حمد الجزيل الله يريم مسليا على كريم خاب الورى للمنهين أشكر زال عرش المجيد شكر الجلال المزيد مسلما على وهيد بكالكالي الكلي وكلمي شكرت بخدمة المعزاني زاني ذا خدمة في العلاني لو وفاك ولاني لو بداعيا بما يهيب ماضيا وغدا لي أخراديا زادا لدار الكرم kon loolu mooy daajub gis bi nga xam ne siiw na lool nga xam ne sëriñ Mayib Gueye da ko daan bero di ko jàng di ko ànd ak tam euh, waa kër Sëriñ sàmba léegi nag dafa am beneen daaj boo xam ne euh, mboolem ñoom ñu ko daan jàng ñépp sëñ Mayib Gueye wax na ni euh, sëñ tubaab moo leen wax ne daaj boobu moo tax ñu wàcce mawaay bu muy daaj bu kéemaane boo xamante ne bii sëñ Touba moo leen ko joxal boppam ne leen dee leen ko jàngee nii te wax nañ ne wax na ne urul ay yi lañ koy jàngee ci àjjana muy daaj bi nga xam ne euh, sëñ jiili kon bismillahi mulhayi bila manahi walantihaay بسم الإله ينمو الهي بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهي بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مرادي خدرا قلبي بالاقتداء لو شكوري بلا كفوري وهو نسيري منه ذراعي لو اقترابي بالاقتراب لو ختابي ما تدعي لك ردائي لك سنائي لك التجاهي ما تدعي يا من سفاني يا من هماني همن جفاني bi mahwi daay kon eh, kon boobu mooy daaj bii lañu wax na ñoom sëñ Tuubaa moo leen ko jox ñu ñu di ko ñu di ko jàng am beneen daaj boo xam ne itam mooy daaju jës bu la eh, ci bànn bi ko sëñ Mayib def mi ngi ko commencé neex mën na bi war a sóol nee na daaj boobu itam sëñ Tuubaa moo xëy bis jox leen ko ne leen dee leen ko defee nii نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بسول لنا برب جميل من ذكره ولا خميل نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بسول لنا بربه الجميل من سكره والخميل حياة أحمد لا تتناهى سرمدا ونلخواس للهدى عن خطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا عليه انزلا هدى بذي التعلم اكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب في الخطاب والجواب من ربنا ذي الخدم هو الشفاء من كل داء لمن عليه تمدا ومن أباه رداء زازرة وندم كن loolu kon yooyu di ay daaji cosaan yoo Euh, bala ñu ñëw ci wàllu conservatoire bi muy daara ji nga xam ne tey mooy saytu njàngum xasida ci kuréel yépp kon ñu koy fàttaliwaat bu baax a baax nga xam ne kon lii ay daaj cosaan lañ mënuñoo jàng daaj yu ko gën a cosaane ndax daaj yoo xam ne sëñ tubaa ko joxel boppam mag ñi daan ko jàng mu di ko déglu kon mënuñoo am benn daaj bu ko gën cosaane ak daaj yi nga xam ne ñi daan jàngal doomi sëñ Tuubaa ak ñi naan jàngal eh, ak kuréel bi nga xam ne mooy kuréelu daaru moxti kuréel waa sëñ Masamba kon daaj yooyu ak kuréelu Baye Mbaye Niang kon daaj yooyu itam ñu ñu ciy soññ kuréel yëpp suñu morom yi jàng ci kuréel yi ñu xam ne kon eh, jàng yëpp nag lañ war a lañ war a dekkal waaye moomu njàng da cee da cee rawati léegi nag ginnaaw bi ñu waxee ci njàngum rajas ñëw ci njàngum kuréel Euh, bala ñu ñëw ci conservatoire ñu dem ci njàngam awe ko njàngam rajas mooy njàng moo xam ne ki koy def day taxaw kenn di ko def loolu moom euh, siiw na derul ñu ci joxe exemple njàngam awe ko tam euh, wax nañ ne sëriñ Cheikh xal sëriñ Cheikh Fall Xattaaba moo ko njëkk a def am na ñu wax ne ay 1940 la waaye en tout cas daal sëriñ Cheikh Fall Xattaaba moom 1910 la la gane àddina kon bokk na ci ñaar li nga xam ne ñoom ñëw njëkk a jàng njàngam awiku euh, muy njàng moo xam ne njàng mu am solo la nga xam ne tey bëri na ci murid yi bu njëkk ñiy mokkal xasida wala liy siiwal xasida yi wala liy siiwal ay bayti xasida ci njàng moom a juddoo nga xam ne tey bu naan jàng mawaay bu da ngay dégg ñu ne asbil sutóori la ñuy commencé bu ko commencé awkat yi di ko wax di ko waxaat am day mujj sax ku ne ci baas bi da ngay mokkal da ngay mokkal bayit bi su ko defee da nga daal dem gëstu ji wuti xas dëgg ma bu kon loolu Serigne Cheikh Fall Xartaba gis nañ ne moom daal bu dee école la dañ naan école boobu moo ko ubbi moo ko moo ko njëkk moo ko njëkk a samp moo ci njëkk a yëngu daal moom bokk na ci les pionniers ñi nga xam ñoo ci jiitu moom nag daana ànd ak ku ñuy wax sëñ Matar Mbay di ko def ak Baye Thierno Dieng sëñ Cheikh Fall ba tam bi mu demee ba ba ba tëlee ba nga xam ne mag gi dikkal na ko dafa jiital euh, sëriñ Matar Mbay and kong mom, eh, nga xam bu ubbe njang mi rek nakoy bayyi seigne Matar Mbay continuer seigne Matar Mbay itam euh ginaaw bim ko yoree mok Baye Thierno jeng ci école seigne Cheikh Fall beuri na ñu fa nekkon tam ndax amna na bu mak bu ñu wax seigne Cheikh Lo Baye Cheikh Lo mom eh, mi ngi fi joge ci ane ay 1963 la fi bàyyi ko momi itam yakarna am njangam nekkon na njangamu mu ndax ku yàlla joxoon kàttan la te itam li tubaab di wax fécondité bu doon tey sos ay daaj dañuy damay wax ne Baye Cheikh Fall kenn ëppalewu ko lu mu sos ay daaj ci ci am njàng Baye Baye Cheikh ndax njàngkat yu bari dañ naan am benn daaj seen mën a way tax na xasida goo leen jox ñu wëlbati ko ci am ci ñoo xam ne sax daanañ def baxru bu ne ñu am ci daaj wala baxru yu bari ñu am ci daaj baxru rajas Eh, bahru tawil bahru basit waye seigne cheikh lo mom dama selu ci njàngam dafa mel rek euh khassida bu muy jang bu ne ak nam koy jange donde sa dañu bok bahru hamad sulayman khataba sindidi rumna yo yep ñoo bokk ay basit lañ waye bu ci ne dañu amon daaju bopam ba ci kawin manam bu mu ci jël rek du bok ak namuy jànge daaju morom kon mom bokk na ci ñi nga xam ne ci école yi gën a mag moom itam ci wàllu njàngam ko moom itam daana ànd ak euh, ku mel ni euh, sëñ Moustapha Diop bokk na ci bokk na ci ñi ko daan awu euh, dégg naa tam ci sëñ Moustapha Kebe moo ko ba moo ko bàyyi Moustapha Diop yëpp yàlla na ko yàlla yërëm bàyyi Moustapha Diop mu wax ne lépp lu mu jàng ci daaj mu ngi ko jëlee ci Cheikh mu ne Baye Cheikh Lo nag yàlla da ko defoon da ko bindoon mu doon ko am kàttan am njàngam mën a kawe ñoom ñëpp mu ëpp leen kàttan moo tax mu royoo daaj bi ni mu ko royee noonu ba ba mu gën a oyof Baye mu euh, Moustapha Kébé wax loolu lépp lu mu jàng ci sëñ Cheikh Lo la ko jëlee. am na tam école bu mag boo xam ne euh, ñu koy wax Baye Saliou Thiam daan jàngal sañ Fallou sëñ Cheikh Lo euh, mi ngi nekkoon kër sëñ Mbacke màddina Euh, moom itam daana ànd ak ay sëriñ Wàdd sëñ Moustapha Diop ñoom ñëpp ci école am woon am na tam euh, ginnaaw Baye Saliou am tam ku amoon tur la ci njàng mi moom itam bari na ñu nekkoon di ko awu sëñ Moustapha Diop soxna daana ko aw yaakaar naa sëñ Abdou Khadir Sey ca yooyu la bokkoon euh, ginnaaw bi ñu dégg sëñ Ablaye Ñang ñun ñu gën a doon gone sëñ Ablaye nga xam ne ñu bëri daanañ ko seetaan yi sëñ Ablaye Ñang sëñ fàllu gàmmu sëñ mët sàmb sax mooy juddu sëñ mët sàmb sëñ fàllu gàmmu euh, sëñ mët sàmb sax defe naa mooy war a juddu sëñ Ablaye Niang ndax moom ci ñi ron sëñ Cheikh lay bokk ba ni mu egsee ci sëñ Fallou Ndiaye ba ni mu egsee jàmbaar yi nga xam ne tey muy jànkat yu yu doon ndaw te yóbbu njàng mi fu sori ku mel ni sëñ Xaadim Guèye euh, sëñ Xaadim Kebe euh, maa ngi jégul sax ku lim juum ak ñu mel ni ñoom nga xam ne tey euh, yóbbu nañ njàngum xasida fu sori kon ngeen xam ne xeeti njàngin yëpp ci cosaanu yoonu murit la bokk am na taarix ci yoonu murit te itam dafa bokk ci ndono li bokk ci patrimoine bi nga xam ne dañ ko war a sauvegarder li jëm ci njàngum euh, kuréel ma ji dellusiwaatee euh, waa kër kuréelu Baye Mbaye Niang may lancer appel ñële di kuréel nooru daare ni ba nekk pikin nga xam ne ñoom xamoon nañ leen ci ñu xam ne kon xeeti njàng yëpp dafa war a dund maanaam njàng yooyu yëpp dañ ko war a dundal léegi nag euh, ci noonu laay jugee nag def glissement ci euh, deux deuxième point bi muy le conservatoire en chant religieux sur les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba conservatoire nag mën nañ ko wax école kon day mel ni ñu ngi tàmbali di tontu laaj bi njàngum xasida ndax xam-xam la walla ndax euh, yëg-yëg la xam-xam nag ku ko wax defe naa dañ koy jële ci daara maanaam xam-xam ñi ko am dañu koy jàng euh, jàng xam-xamuñ jàng nag moo tax ñuy wax conservatoire euh, soo xoolee baatu conservé mooy denc kàggu kàggu lan lañuy denc mooy bépp répertoire bépp daaj boo xam ne mag ñi mos nañ koo jàng ci xasida ñu jéem koo dundal jéem ko euh, toppatoo ba nga xam ne tey du réer ci benn génération di ko jàngal gone yi ñu di ko jàng di leen tàggat ak di leen wax taarixu njàng mi nga xam ne daal day mel ni école la boo xam ne euh, ku ci nekk ku ne sa yitte jëpp day nekk mokkal daaj yi euh, mokkal xasida yi di di topp njàng mi ni ko mag ñi daan defee mu nekk ndono loo xamante ne bii eh, dañ koy nàmp saa su ne ngir bañ mu réer loolu nag bu Tarqiyyah da cee def liggéey bu am solo bu am solo nga xam ne tey eh, mboolem njàng yi fi lim rek Hizbut eh, Tarqiyyah répertorié na ko soo demee tey ca daara ja am na fa kuréel yoo xam ne ñu ngi jàng njàngum Daaru Muxti am na fa kuréel yoo xam ne ñu ngi jàng njàngum waa Kër ma sàmba ak ci mag ñi daan e, beru di jàng njàngum kenn njàngum rajas ñi ngi koy dekkal bu baax di ko dundal ak mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ tubaa di ko jàngal ak doomi sëñ tubaa ak ci kër yëpp kon e, loolu moo tax a jóg conservatoire conservatoire nag dafa doon loo xam ne e, wax nañ ko sànq danaa ci delsiwaat ndax li ñu seetlu ci mag ñi doon jàng xasida boo jëlee ku mel ni sëriñ may Guèye mu ne moom day waajuram euh, xomaat la fekk sëriñ tubaa gànnaar euh, jébbal ko sëñ mayib ne ko mankat euh, samay at dafa toll foo xam ne mënuma laxasaayu waaye jox ko fasu naaru góor yëkkati fanweeri dërëm ci alalam jox ko ne ko kiir mooy sama doom ji ma gën a bëgg jébbal naa la ko sëñ Mayib tam euh, bañ ko joxee sëriñ tubaa mu ne ci kilifteefam ba sëñ tubaa yëkkati ko jox ko sëñ daam abdourahman euh, ñu ngi ziar Baye Mbayloo bu baax di ko di ko màggal di ko sargal dama ko seen di jataay bi moom mi nga xam ne moo yor kuréelu daar moxti bi moo jiite mawlud bi ñu ngi koy ziar bu baax di sàkku ci moom sëñ mawlud tam euh, sëñ sëñ Mayib tam ànd ak sëñ daam abdourahman loo Euh, di wax nañ ne sax euh, sëriñ mu talaa mu tedd mi di doomi sëriñ Tuubaa bi mu gën àddina moom la sëñ ndaam yabaloon njaareem ngir mu yóbbu xibaar bi keroog ba mu demee euh, sëriñ Tuubaa dafa bind tur wi ci aw kayit daal di koy sange lem ko jox ko ba noppi yëkkati jaaro ak xam jox ko ko moom sëñ Mayib bis itam sëñ Tuubaa daan na laaj xasida ak xama dak ko ci mokkal ci fere yi boobu sëñ Masamba ngi toog sëñ may dem ba tollook moom déy ko ne ko man de mokkal naa ko sëñ Tuubaa na ko jugal taxaw ne nga jàng ko moom sëñ Mayib Guèye sëñ Yuusu Ndaw moom dafa wax ne bi mu amee juróomi at la ko juróom jénn sëriñ ma sàmba ciw sàkket maanaam gis nañ sax kuy jébale sa doom ñëw toog sëñ bi sëñ bi gis na nga gis ko nga wax ak moom ne ko kii maa la ko jox waaye moom bàyyam daa ñëw sëq ci wagg yi ne ko cëpp ci biir kër gi dem yoonam noonu la ko joxee sëñ Tuubaa té euh mune mune ci kër gi di and ak dongay di yelwaan eh, di wax naan sama ndey deena na aw way wum noonu waay la dal dama dama fàtte ni ko waye waaye xam naa na ci ñaari wajuram eh, di diko daanele bay mbacké balla non la ko don daanele sama ndey deena sama bay xawma lan na eh, waxati damay fàtte wayu dal waye neen da ko don wayantu nek goné di ko wayantu ci biir di yelwané seigne sëñ ma sàmm dégg ko baat bi neex lol ci lako jël bolé ko ci kon ñu xamné kon njàngum xasida pas-pas la pastéef la yar la ak téggine mo koy def nga xamné tay du caagin ne euh, média yi dañu bëri tay rek ñu né ñun ñëpp nañ ci nañ ci dugg buñ ci duggé nangam ak nangam dédé waye pas-pas mo ci jitu ndax mag ñoo ñuy roy kat xam ne koo xam dañ laa jël dañ laa jël euh, kilifa ga ciw sàkket ca nga noppee gis say waajur waaye teewul nga am sa pas-pas sëñ Mayib Guèye daan xëy ca tool ya sa boobu ngeen dégg sëñ Saliou di euh, sëñ Moustapha Saliou mu ko koy nettali di wax ne sëñ Saliou dafa xëyoon amu tàngoor boobu mi ngi mi ngi nekk ci mu ngi gën a féete ndaw euh, ñu tegal ko mu ne bu bu gisul sëñ Mayib du xéewlu ñu wooy sëñ Mayib ndaam bañ demee sëñ ndaam sëñ ndaam Abdourahmane Lo yónnee ca tool yi woolu ko mu ñëw kon ca tool lañ ko fekk muy liggéey te ba mu ba mu jógewaat fa dafa delluwaat ci tool yi di liggéey kon loolu di lu am solo bi am solo loo xam ne ñun ñi ne ci kuréel yi yëpp ak ñuy njàng njàngum kenn ñu xam ne kat njàng mi mag ñi ko daan def wax dëgg yàlla maa ngi jégul nag soññu ma kenn ndax man matuma bay soññ kenn waaye fàttali la rek boo xam ne mag ñi de wax dëgg yàlla amoon nañ pas-pas lool xam naa bu ñu leen mënta dab itam ñu jël suñu jom ak suñu ngàng euh, teg ko ci ba bu ñu leen mënta barke ba ñu amoon ñu am ko waaye xam naa ne mu ñu leen dab kon conservatoire di loo xam ne euh, mooy daara ji nga xam ne kon ci lañuy jàngale njàngum xasida njàngum xasida nag euh, gannaaw bu teggi ni jàlle ak mokkal gi ak yar bi ak sóobu gi ak kilifteef gi ginnaaw bu jàllee kon dafay laaj euh, li sëñ Youssou Ndaw doon wax naan jàng way la nee na way nag da aju ca galanu bat ba nee na boo amee galanu bat ba nak mu def njàngin wa njàngin bi mooy daaj bi nga fexé japp daj bi nee na ñaar yoy soko bolé nak nag na nga ci am khas donc man nga ci am dimbal kon muy lo xamné euh fu fu kurel mana nek rek ndax tay isbu tarxiya taxawal nañ conservatoire waye njangum xass mi ñing ko and ak daayru yu bëré bëré bëré tay fo dem ci adina rek am na bo xamné Euh, da nga fekk ci dëkk boo dem ba ci réewi Europe yi ba ci Amérique dëkk boo dem di ko fekk kuréel boo xam ne ñu ngi maase di jàng xasaayit di ko yëkkati di ko dundal te bu bu ci laaxatu di jàng boo ko dégloo doo ko xàmmeek moroomam waaw nga xam ne kon daaj yi daal euh, lépp lañu war a jàng nag daaji awiku yi sax ci ci patrimoine murid la bokk dañ ko war a jàng dañ ko roy di ko jàng waaye nañ ci bàyyiwaale na xel daaj yi nga xam ne ba kuréel sosoo daajoo yi moo amoon muy daaj yi amoon 1912 ak daaj yi amoon fii 1925 kuréel di ko gën a dundalaat di ko boole nag jàng yi nga xam ne mënta ñàkk muy jàng rajo si ak yeneen jàng yi nga xam ne ñu ngi koy roy kon loolu mooy li nga xam ne euh, moo jëm ci conservatoire foofu nag euh, ci wàllu jàngin yi euh, ci wàllu daaj yi maanaam daaj mënee su koo lim ndax ay téeméeri téeméeri téeméeri téeméeri téeméeri téeméer la dem na sax ba ci euh, am na tey étudiants yoo xam ne ñi ngi bind seen thèse wala ñu bind seen mémoire dañ koy bind ci yëkkati njàngum xasida njàngum yëkkati kon loolu dafa nekk xam-xam bu leer boo xam ne euh, lu ñuy jàngale la waaye boo boo jëlee daaj yi ñu mag ñi doon wax koo xam da ngay déglu am réer dëggaale ci ab daaj loolu mu ne su ko jàngale waaye boo ko seetee ci rek euh, xam-xam bi nga xam ne danga naan tey jànkat bu mel ni euh, sëñ joxaane wala jànkat bu mel ni bàyyi xaalisa yi euh, bëri nañ ci yoroon nañ daaj boo xam ne seenu mën a way tax na xasida goo leen jox ñu jàng ko ci tey nga xam ne mosoo dégg mawaaye bu mel ni mawaaye bu Euh, bàyyi Mamadou Mbacke joxaane jàng ko waaye jarbaatam bi ñuy wax ndongo jam mi ngi koy jàng te daaj bi ci moom la ko jëlee kon loolu xam-xam la xam-xam tam mooy tax ñu xam ne daaj bu ci nekk dafa am baxru bu mu peese bu mu tollool ndax am na daaj yoo xam ne da koy jàng ci basit mu dëppook moom am daaj yoo xam ne da nga koy way ci euh, baxru jës bu mu dëppook moom am yoo xam ne da koy way ci tawil mu dëppook moom waaye am na ci daaj yoo xam ne mënoo koo jëlee ci tawil yóbbu ko ci mawaay bu kon du dëppoo kon loolu xam-xam moo koy def gannaaw bi nga xam ne galan baat bi ñëw na kon loolu euh, njàngin wi maanaam wayin bi ñu koy wax mélodie ñii di ko wax air ñii di ko wax ab daaj kon loolu faw kiy jàng xasitam da koy man day man daaj bi loolu moo jur kon nit ñi di répété def ay répétition bu ñu def ay répétition pare ñuy tàggat seen baat tàggat seen baat ci Euh, li ñuy wax exercice vocal maanaam tey kiy jàng rek sax te bàyyiwu ko xel bu yàggee baatam dina dina dina toj dina doon te li ñuy wax doon mooy sakkan bu sakkanee dana neex ak nu baat bu mën a bindoo nag mm-hmm. ba tey tam ci waa Kër Samba daan dégg ñuy wax xeeti baat yi am ba tey boo ko xoolee ci lii xam-xam la ndax c'est universel boo duggoon ci ci kii bi nga xool ko ci ci internet bi nga xool ko da nga ko ci gis da nga gis xeeti baat yi am. yëpp ak bu na ne ni ko tubaab tuddee su ko defee loolu na ñiy jàng day baax ñu xam ko ñu xam ni seen baat bindoo ak lan lañ mën ci jàng ni beneen bi tam mooy ci wàllu patrimoine ba tey euh, ñun ñi nga xam ne yëpp jaar nañ ci école français jaar nañ ci école tubaab ñi ngi fàttaliku ay way yoo xam ne dañu ko daan jàngal yaakaar naa frère Jacques ba bokk na ci am na ay way yoo xam ne rek frère frère frère Jacques benn benn frère lay way dangeen loolu nga xam ne ñun ba ñuy nekk école primaire dañ ko daan wayloo ak dañ ci may ay notes lan moo tee ñu jël lii nga xam ne suñu patrimoine la lii nga xam ne ndonol sunu ndonol la ñu dugal ko ci école yi nga xam ne tey benn exemple rek laay jël tey bu doon dañuy chanter ñu ne tey nañ jël kun kaati man école boo ko dugal élève bu ko jàng te yaakaar naa problème bi Sénégal am ci ay grève ak yooyu dootu fi amati daaj bi dana neex xasida gi dana am njëriñ ndax dana ko jàngal loo xam ne da koy jëriñ àddina ak alaaxira te euh, dina ko muñloo ba nga xamante ne bii wax na ko daal melew kiy jàng ni muy mel loolu nag amagul ci réew mi waaye xëy na euh, bokk na ci li ñu sonal waaye bu ñu demee rek ba nga xam ne ndonool Sëriñ Tuubaa lii nga xam ne leer na naññ naññ naññ ñu di ko jëfandikoo di ci yar suñu njaboot ak di ko dugal ci njàngale mi loolu yaakaar naa mën naa tax Sénégal dem fu sore sore sore ndax ndaw ñi tànk yaruñu leen jàngaluñ leen amuñu xam-xam réew mi du mën a dem ci kanam euh, macha allah nag daara yi ñu ngi def liggéey bu am solo kon li may wax ni daanaka ci école française la jëm ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi jàng école française tey soo demee am na benn professeur bu ñuy wax Galaay Galaay Njaay defe naa la tudd muy jàngale ci benn université Belgique yaakaar naa am na ci téere Sëñ Tuubaa yi boo xam ne da koo inscrire au programme su ma juumul defe naa Masaalikul naan la ci réew tubaab bi laa wax de nga xam dafa bokk ci programme bi loo xam ne duñ ko changé ñun bi ñu nekkee université euh, am na programme yoo xam ne ñi doon def lettre Euh, programme yi dafay am da ci am bo xam day fixe du changer waye ñaar at yu ne programme day changer mais amna ci bo xam du changer amna ci ben professeur bu ñu wax Samba euh mom mo nan jangalé euh, la khassida en poular nga xam ci tarikhu Cheikh Omar foutu lay netali waye mom wayon na ci way go xam ne mosu ci programme chaque année nga bëgg ak nga bëgg ba dang koy jang donc lu mel non nak dañ ko wara tambalé ci école primaire maanaam njàngum euh, jàngale Serigne Touba njàngale njàngalem Serigne Touba ñu tàmbale ko ci école primaire yi su ko defee muy dugg ci bopp xale yi buñ ko màggalee léppay jag ay jag kon euh, su fekkee waxtu wi des na. kon su fekkee waxtu yi may nañu ko rek ñu demaat ci njàng yi ba tey ndax daaj yi moom gaa yi duñ ci doyal te mënoo ñëw ba daaru moxti nag di wane ay daaj jàngoo njàngum daaru moxti loolu <laughs> mënta nekk kon buñ ko jëlee deux rek baax na ñu dem ci question yi bu dee question am na xam nag di ko jàng bàyyi mbay loo toog kooku <laughs> waaw dañ ko jomb def commentaire waaw man nga ciy jël waaw page bu njëkk bi wala bu ñaar ci nekk ci nekk الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب بالمستبين مع جميع النهام الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع النهام أحمد ربي العظيم حمدا جزيلا لا يريم سليا على كريم خالد

دين ما زاني ساخ مدين في الحلال لو kon daal ci gàttal euh, njàngum xasidaa ngi noonu muy loo xam ne ni ko sëñ Youssou Ndaw waxee daan bokk ci naan jàngal sëñ ma sàmba na sëñ Touba fonkoon na ko fonk goo xam ne kenn mësu ko cee doy kon moom moo ko daan defal boppam euh, muy loo xam ne it wax nañu ne euh, àjjana la jóge àjjana la ko ku tedd ki jëlee kon yërmandeem moo tax mu wàcceel ñu ko fii ñu di ko taxamtiku waaye dañoo waroon nag ba yegg àjjana dog cee mos lu néew néew mu doon loo xam ne kon euh, ibaadaat la mën nañ ko cee boole ndax tey euh, melokaani Sëriñ Tubaa euh, mooy xasida te itam nettali gi ñu koy nettali ndax ay way la ay way la ay tagg la kon nettali gi dafa doon lu am solo loo xam ne mooy tax ñu dégg way yi walla ñu dégg tagg yi kon ñu ci waxaat ne daal ndono la loo xam ne dafa ànd ak yoonu murit bokk ci yoon wi euh, sëriñ Tuubaa mi nga xam ne nag moo ko moo moo moo moo moo sàkk xasida yi kon moom moo ko njëkk a def murit yëpp di ko ci roy mu doon loo xam ne euh, ni mu ko waxee itam sëñ su na waxaat na ko ne ku taqu xasida rek sa lépp dana jag te nee na duñ jàng mukk amul jataay bu ñuy toog di jàng xasida njang mu sell mu and ak pas-pas te seigne touba tewu fa lolou tam sëriñ Youssou Ndaw moko wax di ko xamne kenn la ci ñu doon jangal ci jànkati seigne massa mbay magi euh kon dal waxtaan non la tëddee bu fekke nak amna ay laaj wala sama gaay ma andal luñ ci fekke dañ ko ci bëgg doli seigne jili seigne Wahab ak seigne mam gor wala bu fekke amna laaj yo xamne bala ñoo dugg ci laaj gi sax xam naa ñu jox Baye mbayloo ndax moom waxtaan waxtaanam dana am solo lool wala waaw waaw ñu jox Baye mbayloo Lo kon bi nga xam ne moo jiite kuréelu Daaru Muxti bi jamono ji toll nga xam ne 1963 wala 64 ba léegi moom moo ko jiite mu 1964 ba léegi moom moo ko jiite waaw jërëjëf sëñ Modou Joxaane ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne andil nga ñu ko yaakaar naa ñi fi teew ñëpp kontaan nañ lool bég nañ lool yàlla na sëriñ bi bég euh, ni nga ko àndee ci tàmbalikaayu sosug njàng xasida muy ci daaji ba fii nga daanelee nga xam ne mooy xeetu njàngin yi am yaakaar naa ne ñi topp nga xamante ne fànn googu mooy seen fànn ci yoon wi te ndaw ñi ëpp ci yaakaar naa ne war nañ cee roy bu baax a baax a baax su ko defee kon incha allahu eh, di sant bu baax itam mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal eh, ci jataay bu am solo bi eh, sëñ Jili Ndiaye ak sëñ Abdou Wahab Dia ak sëñ Maam Góor Fall mm. kon ñooñu moom la àndaloon ci njàng mi ñu leen di jëfal bu baax a baax a baax ni ñuy def rek mooy jox sëñ Baye Mbaye su ko defee moom tamit mu àndi ab taxaw seetlu andi ab euh, yokk ci li nga xam ne moom la sëñ Modou Joxaane doon waxtaane te mujjee ci njàngum xasida bi nga xamante ne mooy daaj bi ñu miine daarul moot kook itam ci soññaat ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi te yëngu ci xasida kenn ku ci nekk fa nga nekk am na lu la sëriñ bi cërale la la sëriñ bi cërale nag booy bay ab waar fa nga war a njëkke tàmbalee kon ñu ngi ci soññ kuréel yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi hmm. xam ne mag ñi fi newoon su fekkonte woon te ne amut ñu leen wuutu woon ci liggéey boobu yaakaar naa ne ba léegi kon ñun du ñu am lu ñu mën a roy kon ñi yëngu ci xaside yi te nekk ci dëkk bi tam ñu ngi leen di ñu ci daaj yooyu ñu di ko gëstu di jege mag ñi ak di ko jàng itam ba miin ko miinaay woo xam ne bu ñu demee ba gisatuñu mag ñi gannaaw àddina moom kenn du fi des bu ñu demee ba gis ñu leen ñoom ñu mën ko wut liggéey boobu dina am solo lool. naa yi bu mbaay mbay noppee incha allah bu laaj bu bu ñu bind rek bu soobee yàlla incha allah bu ñëwee daañu ko laaj su ko defee sëñ Modou Joxaane tontu ci wala Baye mbay bi nga xamante ne moom mooy moom la ñuy jox kàddu bi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maanaam laaj bi day li ma ci fekk ak li ma li ma ci samam nopp may Serigne Makhtar Diané wax ma ko moo di. mom la fekk mu jité liggéey bi tambalé ko ci nekkuk sëriñ bi sëriñ bu mag bi sëriñ Abdou it moma ma ma sëriñ makhtar jang nako jité nako ñaari at sëñ bi soko dem Touba yakarna ne at yu bare bare dama ko munta tak way at yu bare ndax 1927 ba ba li ko ñi ak ñi ko wuutu at yu bari lay war a doon ndax ginnaaw sëñ Maxtaar sëriñ Alsaan Lo wuutu na ko fi daf cee yàggut juróom benn weer rekk la ci am sëriñ Ceerno Jóob Fatsar wuutu ko wuutu na ko lu mat fukki at ak benn sëriñ mbayloo sëriñ mbay xuma wuutu ko am na ci fukki at ak ñaar ñu song ma fee eh, teg ci baatum digal ma wuutu leen ci ci xalifa sëriñ Abbas nag laaj sës rekk ñu jox ma ko ci ndigal loolu nag li ñu ma ci doon laaj mag ñi fi nekkoon te cosaanoo ci jot nañu mako laaj ma waxan leen ko modi serigne makhtar maxtaar serigne modjo koso serigne Ibra Gay serigne jaga fall ñent ñooñu ca mag ña lañu won xaa ni nañu teew ak serigne bi ak ñeneen ak ñeneen muy dox ba agsi fi su ma ko su ma ko teeloon a xamee nii nii ñu def danaa ci jël ñeent ñu ñu ñu joxe ab daaj boo xam ne bi cosaanul daaru muuti la te kenn fekkagu leen ci muy daaju gàmmu boo xam ne bi ci muxaddamaat bi la ne moom déggaguma ko fenn furul daaru muuti waaw muy daaju gàmmu boo xam ne bi ci muxaddamaat bi la ne ñu di ko jàng am na ñaari daaj waaye boobu moom génnagul fenn fu dul daaru muti waaye nag yeex gee yëg ci waxalu takkusaan si ñu woose ma bu ma ko teelee nekk dinaa tànn ci ñi ko man ma indi leen ñu def nii ñu def waaw waaye nag dafa gàtt ba noppi wit waxee ma ko wan noonu waaw maa ngi jégglu nag ñàkk gee am loolu ba ngeen xam ko ndax yeex gee yëg bés bu am na ñetti daaj daajub daajub daajub cosaan bi ak daajub mooy daajub sopp bi ñoo ànd ak daajub gàmmu muxaddimaat am na ñaari daaj daajub cosaan bi ak daajub gàmmu bi mu waxe bu am na ñetti daaj ñaari daaj yi ñu bari mën na ko mm-hmm. waaye ku ko jël ku dul daaru muti rekk dana des dëgg la daaju poso it am na boo xam ne bi seen daaju bopp ba ñu ba ñu adressé leen ko ba ñu cëraleel leen ko bu ñu man waaw loo xam ne li moom daaju waa kosoo waaye nag ñu ko mën a jàng bu ma ko téela ne danaa tànn ci bëccëg bi ñoo xam ne dañu ñëw nii ñu def ñoom ñii ñoom it ñu def ko hmm, loolu rek la wasalaam bu dee ci daaju daaru moxti yi itam am na ci njàng mu ñuy jàng ci mawlud bi boo xam ne njàngum aw la waaw njàng moomu itam fu mu jóge boobu sëñ Maxtaar a ko daay jàng daawul nangu ñu soppi daajub daaru muxti boobu yi ni ñu koy defe ku fi ñëw tey jàngit boo ko bëggee soppi dalay wax ne la fabal daaj bi nga xay ni moom la fi sëriñ bi digle nga xëy ne du am aw yuux du am dara du am ay po du am caaxaan du am dara nga xëy ne ku ma ku gaaw mbind sax mën nga koo bind moom noonu lañ noonu lañ daa def ba fii mu ne am na ci benn benn yoo xam bu dimanche ñëwee ni tey jii daañu ko jàng waaye dootul ñépp waaye njàng mi daa neexatu teg ci aw yoon ndax ñi nga xëy ni dañuy mel ni man mi te mokkaluñu ko wala mënuñu daaj tey jàng fokk rek ah, ah, fokk nu am ci loo xam ne dañ koy yiiraale rek mm-hmm. waaw mm, moo tax mm-hmm. dëgg la est-ce que jërëjëf Baye yaakaar naa ne loolu leer na kon waa li ma doon wax sànq ci kuréel yi nekk Daaru Mooti mm-hmm. daaj yooyu mu tudd sànq daaju koso beeg daaju ñaareel daaj boobu ñu jàng ci gàmmu yi te ku nekk ci dëkk bi xam ko bu ñu ko daajee moom faw nga yëngu ñi yor fetal rek ñëpp xam nañu daaj woowu yaakaar naa ne bu ko bu ko teeloon yëg nii mu ko waxee dana mën a andi ñu ko misaal am na solo lool ñu ngi lay sant bu baax a baax di ñaan yàlla nga yàgg fi lool te ko wér mbooleem jàngkati xasida yëpp euh, sëñ Modou Diokhané yaakaar naa ne am na ay laaj yoo xam ne ñëw na fi euh, jëm ci lii nga xam ne moom nga doon waxtaane euh, am na ci koo xam ne dafay laaj nee na lu ñu tuddee daantu ne daantu ne cim njàng nee na loolu la bëggoon nga leeral ko ci mm-hmm. nee na mu ngi rafet lu waxtaan bu baax a baax asalaamaaleykum kon euh, daan cuune moom baatu wolof la maanaam naa ne baat la daan ak cuune loolu mooy ni ma déggee sëñ Cheikh Gueye mépp di ko expliquer mooy loo xam ne euh, da nga koy def ci njàng mi te cuune du ko man maanaam boo ko defee kon da ngaa daan cuune ba ndax cuune mënu ko nga xam ne kii jàpp daaj bi dëgg dëgg dëgg mooy mooy dem ba yëg ko ci biir njàng mi man koo def ngam day wuuteek ni ñuy jànge waaye du tee ba tey day am harmonie day ànd boo ko dégloo day mel ni ci njàng mi la bokk loolu nag boo dégloo ci njàng waa sëñ ma sàmba yi wala yeneen mag yi di nga ko ci gis loolu la ñuy wax daan cuune man am na kuy laaj beneen laaj nee na eh, mag ñi noonu ñu daan def di di woo jàngkati xaside yi ñu di leen jàngal ko mel ni sëñ Abdoulaye Jaxate ñu min nañ ko ci ku mm-hmm. mel ni soxna ja mm-hmm. miin nañ ko ci mm-hmm. nee na lan moo leen di teqale ci diggante daaju soxna ja boobu ak soixante-dix-huit ak soixante-onze ak ndax loolu lépp du bennum njàng rek waaw loolu lépp bennum njàng la xam nga yëg-yëg bi ñu wax sànq mënees na ko cee firi ndax euh, menn njàng mi la ñi ko jàng ñenn ñi la daanaka daal ndax soixante-onze soixante-dix-huit li fi li kuréel bu wutee bariwul waaye nak sohole xoolee jataay waa kër sëñ ma sàmm seenum jang nekul luñu mëna tak mu maase doon ben baat déedéet dafa am ci walu ki lu wax polyphonie manam baat yu bari nga boole len ba nopi ñu and ba nopi nga mën len sétantal ku ne nga xam limi wax euh lool nak moy mom mom mom moo moy li nga xamne mandarga la ci jangum wa ko ma dana bu ñu dee wax ay soixante onze soixante dix huit jataay ba la rek at mañ ko jàngee jataay bañ ko jàngee rek noonu lu at moom lañ ko dàkkantale soo xoolee day am wuute nag waaye yaxum njàng benn la boo ci jël bu rek waa ko sëñ Masamba ko jàng yaa ci biir waaw noonu la demee. jërëjëf itam mu ne day laaj ba xam nee na euh, xasida yi nga xam ne leen di yëkkati. Mhm. nee na boo demee ci daara Sëñ Saaliw am na sas woo xamante ne moom la leen sëñ bi loppiloon. Mhm. nga xam ne moom lañuy ñuy yëkkati. Mhm. ndax. xasida yooyu donc ci lañu war a moom lañu yëkkati war a yëkkati wala daa am yeneen yoo xamante ne ku mu neex itam nga tànn yeneen i xasida mën mhm. ko caa yëkkati waaw ñaare ñun xasida yi njëkk tàmbali mooy yi nga xam ne waa Kër Masamba dañ ko doon jàng xanaa bu ñu ko déggee ci ñoom ñu leen jàngkat yi ñuy roy par benn nga xam ne daanañ jàngal doomi sëñ Tuubaa wala ñu siiw lañ ci yoonu yoonu murit seenum njàng ñëpp kii nañ ko ràññee nañ ko bu leen roy tam dañ leen roy ci xasida gañ jàng loolu moo waral tey bu ëllëgee bu tey ñu jàng xasida gi bu ëllëgee ñu am na ci xasida yoo xam ne tam événement ya lu mel ne tey ñu ngi ci koor gi hmm? am na ci xasida yoo xam ne euh, boo ko xoolee ci fi ci diwaanu xuraan yi la de ah, dafay dëppoog daal euh, weeru koor shahru ramadan day dëppoog moom waaw su ko defee loolu dana waral ñu du ko jàng ci kuréel tam bi ma leen tudd sàng dama fàtte ñu am solo muy waa kër sëñ saaliw dongay sëñ saaliw yi nga xam ne ñoom it bokk nañ ci gënoon a jekku njàngum waa kër sëñ Masamba ak njàngum sëñ Alaaji Siise nga xam ne bokk nañ ci gënoon a jekku daal ñooñu. jërëjëf ci laaj boobu kii itam mu ne day laaj moom nee na kuréel boo xamante ne day dog di sosu. Mhm. ñu bëgg am fu ñu jëm. Mhm. nee lan nga leen di leeral lan nga leen mën a jàppale ci tàmbalikaayu jàng. sëñ ma yëpp sëñ Masamba ñun de noonu la ñu doon noonu la ñu doon tàggate. Ah. ñu doog a sosu daal. Hmm. daaju sey may biñu jang fi gisu bi sank te sey Abdoulaye Touré dan ko roy kuréel dan daan tàmbali daana leen ko jox bu paré nak nag dem ci waa sey ma samba ndax waa sey ma samba day nuru lu yom ni waaye moo gën a ci daaj yi mo ci gëna jafé ak daaj buñu waxe ñu waxee waa kër Massamba nag nañ daaj yi dal yi daal daaj mag yeb daaru muxti sey Ñang ñu ci jere ki itam mu ne day laaj mom Euh, lépp mooy lu jëm ci wàllu systématiser maanaam jël ak daaj uh-huh. man koo soppaxndi ci yeneen i daaji daaj voilà wala xasida gi nga soppi ko ci yeneen i yeneen i xasida yu bokkul bokkul mi waaw nee na loolu ci la bëggoon nga ñëwal ko ci tuuti waaw loolu moom kii ma toogal nii moom <laughs> xereñ na ci moom mooy ku ci xereñ la nga xam ne bu ñu koy def ci daara ji moo koy jiite hmm. muy sëñ Jili Njaay am na tey comité pédagogique bi daara ji taxawal ngir loolu moom ci loxoom la nekk hmm. donc ñu ngi ko ciy ñaanal waa bu baax a baax te moom mën na ci indi leeral defe naa sëñ ji fan la kuréel di toll ba war a mën a taxaw taxawaayu mën a sos ab daaje boppam wala mu sij sima dëj sëñ ji di wax ay ci tontu rek <laughs> ngi siyaare mbokk taalibe yi fi teew yëpp jiital ci nuyoo bi kilifa yu baax yi buñ ko tuddee sëñ Ahmadou Mbàkke yaakaar naa dina mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp sëñ Mour joxaane ñu ngi koy siyaare moom it di ko ndokkeel ci jotaay bu màgg bi nga xamante ne nii mi ngi koy amal fii ci Daaru Muxti woo ñu ci nag ngir ñu jàpp ci nga xam ne daanaka li ñu xam ci njàng mi tey yàlla ak moom mii la ak sëñ Maxtaar Jéen ak sëñ Mouhamed Lamine Sey ak ñin ko àndaloon ñëpp rek kon laaj boobu eh, daa baax rek mën na jotontu waaye xëy na bëgg ñoo sagal la tax mu delloo ñu ko hmm. waaye njàng moo xamante nii dañ koy dañ dañ ko war a systématiser ci waa adapté ko ci kuréel ñaari lu koy waral ki ñu bëgg a roy da koy jànge noo xam ne du méngoog njànginum kurel maanaam mu nekk rajo daajo rajas boo xamante ne nii day day day kene ba mu ëpp boo ko doon déglu tey day da nga naan lii ci kenn di ko wax rek ci lay dàq ci lay gën a neex ñu fexe ko soppi di ko soppi ndànk ba mu gën a jege kuréel ba mu niroog kuréel nga xam ne mbooloo dañ ko mën a ànd mu neex ñaari wala mu nekk daaju dëbbe awu ci ñuy mel ni suñ seex fal xattaaba wala suñ seexloo wala bay daamloo wala ñu ne mel mu mel njàng daa xaw a baase tuuti ñu fexe ci na nekk ci moom it di ko soppi ndànk-ndànk ba mu gën a jege ci kuréel gën a jege ci ab yar euh, ñu ci noonu lañ ko daan loolu mooy njàngum njàng mu ñu war a systématiser mm-hmm. loolu loolu mooy keno yi nga xamante ni moo koy waral mm-hmm. Euh, kii itam nee na moom daa bëggoon nga ñëwal ko ci wax nga ko léegi ci sa biir waxtaan mooy comportement jàngkatu xasida kii jàng xasida ndax gis nañ ne ndaw ñu bari léegi dañoo jub jëm ci wàllu xasida yi mhm. njàngum kuréel yi mhm. euh, te kenn ku ci nekk ak ni nga ci ñëwee mu bëgg nga mhm. ñëwal ko ci lu gàtt rek comportement bi nga xam ne jàngkatu xasida war na koo melokaanoo jàng xasida moom murit a koy def murit moom seen blaat waxoon nañu ci ñett yi jub xooj wér céng bu dëggu waaw kon nag jàng xasida moom koy def da ngay am yar am teggin wax naa ko sànq ndax pas-pas la loo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko doon def euh, digle santaana ñu di ko def loolu pas-pas bu rëy moom ku koy def pas-pas bu rëy nga war a àndal te lépp loo xam ne rek li ñuy wax modèle walla exemple man loolu laa gëm dañ ko dañ ko war a doon tey bu dee da ngay jàng euh, nekk ci daara walla ci école walla ngay jàng métier da nga caa war a ràññi ko bu baax fekke da nga ne ci kurel di ranyu da nga wara ragn ko ci métier mom nga la ngay am ci kurel ba da la wara doli dolli ba nga gëna euh xerañ ci métier ma wala nga raw ca manam nit nga nit nga nit ngay doon ko xam dal da ngay nek model nek ambassadeur culturel wa nga xam ci fan yépp du mëna da ngay matal lepp way dal yépp dal dañ la ci baye xel te dañ la ci dañ la ci nawlo dara jitu na yar ak ak ak ak pas-pas bi daal loolu moom moo ci jiitu. jërëjëf kon yaakaar naa ne loolu moom euh, am na ci solo su ko defee beneen bi ci topp mooy kii mu ne